bu yàggul dara ñu gis ki nga xamante ni mooy Demba Guissé daal di génne. doy na clip bu bees ah. dama koo xam rek Demba day jële ñoo bokk ndey ak baay Demba fan yii daf maa bàyyi daal Demba lii. tey tey li ma ko fekkul daf ma jaaxal sax parce que moom chaque jour fii lay xaaraane. man de ah jaaxal léegi lañ ma koy laaj ndeysaan. sama rakk bi am na am na ku def dara nag de. taay kan la ñu ngi gërëmante ma ak moom. Ah. mais fan yii kan la jël taay ko ku diw bër bi gisoo pen <laughs> gisoo Demba tey. tey tey ñëwul démb ñëwul démb fan yëpp ñëwul a wax kay mais loolu problème bi dama ko bëgg est-ce que du clip bu bees bi moo tax muy saaf tamit waaw ah, saaf nag sama rakk yi daa a sa njaba mi ci Podor yudu bi sa ñaan jaami yulu ñoo leen moom yu xes si ñoo leen moom dëgg neexul maa lox loolu waaw léegi yow Sénégal yëpp xam nañ ni Demba sa xarit la hmm. ku laal Demba jot jikko Penda hmm. avant clip bi di génn polémique bu bëri amoon ci photo yooyu ñu rëccaloon rek génnee ko ci tournage bi. Mhm. ba nga gisee nga xëy gis ñu titre titrage bu rëy boobu noonu. man xëy man di <laughs> guddi lañ ma ko wax. ah guddi lañ la ko wax. Demba a ngi toog mhm. li ñuy wax des xam ne dafa nekk France dama ko mujjee bloqué parce que lu ñaaw rek la may wax bëgguma ku may waxal lu ñaaw ku may woo ma wax si lu ñaaw bëgguma ko bul ma tiital est-ce que comprendre nga. xamoo ndax dama am crise xamoo ndax damay daanu ay rab woo téléphone depuis Italie ci ci ci dëggu gi ma lay wax rek woo ma aloo Penda ma ne waa mun ma wuy yaay waa Penda photo Demba Guissé bi muy wax loolu Demba ngi toog ma ne wuy sama ndey lan moo xew rek ma coupé man ko Demba lan moo xew mu ne moom bi bi ñëw si yoon bi moom itam lañ ko envoyé affaire bi parce que gars yi seen tournage comme man niñ ma defoon man bi may tourné sama namoon naa leen bi dañ ne Penda dafa sëy ak ministre te pourtant ki ko génnee xaw ma kan la mais xam naa ci biir ñi àndoon ak ñi àndoon ak Papis bi ñu tourné la peut-être kenn moo ko génne mais man santuma woon ma koy wax noonu ne ma dangaa sëy sam papa bi ma jur moo ma woo maa ngi toog fii kon peut-être Demba xam naa bi ñuy tourné la ko kenn jël. <coughs> ay ay fuite la. <coughs> ngeen baal ma dama xaw a sonn waaw. léegi Demba ma mi ngi fi toog dama tiit man tam fàtte naa ne Demba ngi toog fii moo ko Demba lan moo xew mun ma lii de dañuy wax man léegi lañ ma ko envoyé nii ma ne ko sama fii di jam sama digg ginnaaw gi di jam. bëgguma nag lu dul Demba génn sama kër ñibbi parce que boobu man ki ma ko wax jéppi naa ko mais jéppi naa tam Demba nga lan nga doon xoolee ba ñu war laa def nii parce que Sénégal xoola billaahi wallaahi wa taalaay dañuy dem ci kaso bi jigéen ñi camp pénal di fa joxe ay aide doo mësa gis journaliste yi bind ko est-ce que comprendre nga li ma bëgg a wax ku dem ci camp bi fii ka dem euh, ngóone su ma juumul la tudd Seynabou xaw ma ngoone chaque jour dañ fay dem ay événement ak baxaw rappeur di xool détenu ya fa nekk di waxtaan ak ñoom di jënd seeni sër man sër bu ma doo sama kër si détenu yi laa ko jëndee ak ay laafa ak ay yooyu loolu dégg ma ko journaliste bu ko bind waaye yàkkamte noo bind ay ween mbaa kuy sangu mbaa nit di wax ak nit génnee ay ojo gis nga mbon googu noonu ñu ñu ñu pour mu promouvoir ku mel ni man man nit mun a gis dara ci internet ba wax ma ko ma gëm ko damay xool rek jàll dama naan non comme yeneen yi la dem te jigéen boo fi wane awraam kooku tey balaa weer dina dem Dubaay dina changé ay yëfam pour dañuy foogoon bu la ko defee dañ lay dañ fekk des fois nga génnee nit ba pare yéen site internet yéen a ko may doole. parce que benn photo boo xam ne boo ci dalee photo bu bu nu photo fuité ko ma toog ak sama xarit yi nii def leen sama kër sol sott wala dara nga génne ko danga may dox leel danga may dox leel am na góor ñoo xam ne ay kii lañu xam na ko tubaab di tuddee boo gisee awra nit wala nga gis forme nit waa mbaa sili bu nit buy feeñ un mois laa ci teg mu dem Dubaï changé oto. am ay yëfam yu baax te pourtant yaa ko ma yow borom site ba ko dugal mbon léegi boo ko fi defee mooy gën a dox est-ce que comprendre nga li ma bëgg wax tey boo génnoon ku muuru nii da nga génnee penn gise mi ngi toog këram yor euh, sàppale di di julli soxla wuñu loolu mais tey boo génnee woon léegi ci man lu garaaw a garaaw danga may dox leel ndax dinaa ci xam ay patron xam ci ay kilifa xam ci ay c'était ça man li may wax toujours nit yi duñ ci bàyyi xel mbon boo ko génnee ay ween ak ay taat ka nga génneel la mois laa ci teg laax déggalu ma la àdduna am changé am déet boo ko jëloon nga téye ko nga woo ko téléphone ko kat gis naa sa benn photo boo xam dañ ma koo sànni te bëgguma koo dugal ndax jigéen nga du dëgg kooku dootu ko defati mais imagineel nga génne ay ween génne ay taatu jàmbur mu def yaramu ne nii après kooku un mois dootuñu waxaat ay waxam wala une semaine dootuñu ci waxaat ay waxam après kooku day dem nag ay Chine ay Dubaay ngay doxle nag sa yëf di baax kon waroo xam ne kon loolu nga def noonu moo moo waral lii duñu bàyyi loolu ñuy génnee te génne yu baax yi. mais euh, moom soxnaam nan la ko jëlee. kan Demba Demba soxnaam dañ ko forcer sunu kër boo fa demee bàngoo la. Hmm? jabaru fat demba jabaru demba moo gën a belende demba nekkul sax ci monde boobu tubaarkàlla macha allah rafet na ndaw na dañu waxante dëgg dëgg nekkul te jongo ma piir la kooku dawul dara Fatima du daw dara de xale jigéen ñi demba bu ko neexee mu takk ñeent parce que suñu kër ay këru famille lañu dañoo am ay doomu baay yu baax tubaarkàlla léegi la fi sama doomu baay bi jóge Ali Gise maa ngi koy nuyu de passage ay doomu baay yu baax suñu tànta baax kii jeg suñu yaay moo ñu gën a jege sax que ñun suñu yaay bu ñu dara di metti tey Kaja mooy gën a am lu ko metti sax que sama yaay parce sama yaay dafa dëgër tuuti mais sama wujju yaay moom bu ñu ne Pendo feebar na wala dara rek moom daanu na benn place. comprendre nga sama papa tamit nekk père de famille ñuy toog ñun ñëpp di ambiance ñu ay kër tukulóor lañu dañuy toog di ambiance sunu kër ñun baba di làkk tukulóor xale di ko fay ci rek ñu ambiance mais jabaru Demba boppam romb na foofu yow it ah oui xam na ne jëkkëram ñun ñoo opté nekk si tele bi dañuy dégg dañuy dékku lépp parce que Sénégal noonu la demee da ngay gis ku la jege lool sax ñu bindal la dara mu commentaire ca lu ko neex. nga xam ni commentaire bii diwa ko def. du dëgg waaye ñiy commentaire léeg-léeg nga commentaire lu négatif ka ngay commentaire yaayam a gën sa yaay bàyyam a gën sa baay ndax boo baaxoon ñu def la ci internet bi ku demul nag kenn du la commentaire al mais nag boo nee carrément artiste la wala dama siiw nit ku siiw Sénégal non dékkul lépp xam ni da ngay jël lépp sunu yaay tey par takku na ba dëgg fas yéene encaissé lépp sama papa sama famille parce que loolu la demee aar la ñuy def il faut ñu am ñu bañ ak ñi bëgg du dëgg mm-hmm. donc nag ñi bëggul nag tant ku ne na nga toj jënd galaat toj ko naan seddal sa fii àdduna yàggul te yàlla boo soxoree ne Penda Guissé du dem fii non suñu borom day jël sa sens yow jël sa sens su yaay ak sa sens su papa jox ko Penda gise mu tas ko seen famille deema saaga rek waaye yow mi may saaga heure boo yeewoo gis nga lu la naqari seen biir du dëgg saaga ma ba doyal man artiste laa man yooyu keeru ma bàyyi moo doo may ñawal Miss Diouf may defar dar nam ma dara. defe naa article boobu bi mu génnee euh, ci dem a gisee bett nañu bëri en tout cas ku mel ni man sax. man mii ah, parce que dama ko message sax parce que. Euh, dama sokke nekk na nit boo xamante ni xamuñu ko ci daray ñàkk fayda. Mm. Demba ormal na doomu aadama respecté na nit xam na fi muy teg tànkam aussi ah lu raar ci artiste yi nga xamante ni ay jeunes la ñu nekk si seen digg carrière euh, macha allah ñu koy ñaanal suñu borom rek may ko réussite bu bëri bëri bëri ci ci ci li mu yaakaar ci clipam boobu en tout cas ak li des si carrière am yow tam ku yaru nga yow tam parce que damay lire say commentaire <laughs> nit ñi di la waxal loolu dafa baax mais journaliste doo dem rek nga xool négatif kese nga di ko laaj est-ce que comprendre am na site yoo xam ne dañ may woo man du ma dem parce que seeni journaliste bëgguma leen maa leen dàq li ñuy def ñoom est-ce que comprendre nga ma bëgg a wax man mun naa wax ak mag mun naa wax ak xale mun naa wax ak sëriñu sëriñ bu mag mënoon naa toog si tam léegi di ko poser question parce que loolu laa dama ko bu ma ko bëgg mais journaliste yi ñàkk nañu kersa seen morom yu ndaw yi nekk ci télé yeeg nekk ci ci site yi te dañu war a dal di jàng nit ki bala ngaa ñëw ci moom biographie mais yow sa bos tubarkala yaa caat bu Sénégal set caat bu ñuul nit day dal loo bëggul tey am na loo xam ne ba ma ko laajee ma mère bul ma ko laaj ndax su ko laaj dama la koy delloo bu dee émission directe la dama ko yàq léegi nii est-ce que ma bëgg a wax mais journalisme da ngeen ay fas sa kër sax di nan la nan présenté woo boo am wayu bu baax da ngay bañ a am na jour am man boo ma ci woowee du dem am na journaliste yoo xam ne bu ñu ma woowee defuma ak ñoom interview parce que lu ñu changé wax bëgguma ku ma changer ay wax ndax sénégalais dañuy dagg lu ndaw pour yàq sa life du dëgg waaye man je suis prêt à tout man lu ñëw dama koy engagé barke Alaaji Malick ragaluma dara xam nga may bañ jaxaran moom doo ko fekkee waxal la neex waaye doo ma gis jaxaran ba tey ah, dañuy wéyal suñu waxtaan ñu daal di dugg tuuti nag ci li nga xamante ni mooy sa famille ndax bu ñu xoolee Pendo sa waajur bu góor moom euh, aéroport la doon liggéeyee. Mm-hmm. nekkoon fa fonctionnaire macha allah donc sa waajur bu jigéen tamit doon yëngatu ci wàllum commerce. donc mën nañ ne si seen tout temps que euh, manqué woo leen woon dara macha allah mais euh, lépp lu mu sàkk woon si njabootam mooy ñu jàng mhm. ñu persévérer ci li nga xamante ni mooy euh, seen en tout cas seen jàng bu baax euh, si seen euh, scolarité et tout donc ñu mu gis ni ay doomam ñu ngi bëgg aar ndax yow du yaa njëkk def aar seen kër ana sa mag bu góor moo la jiitu ci aar. Tamba moom mu ngi États-Unis mi ngi États-Unis voilà après yow tamit nga topp ci ay paawam. Mhm. Demba macha allah topp si. kii di jibi mhm. mu ngi ci macha allah. Mhm. Euh, bañ a lima ndax njabootu jàmbur mais macha allah ngeen bëgg aar lool mën ko it di ko teg ci temps tey sa waajur bu góor bu xoolee ni leen doon teree aar. tey yàlla. natt ko laay wax mhm. ah mhm. ci dégg-dégg rek mhm. njabootam presque yëpp di def aar mu xool tamit réussite bi ngeen ci am fi ngeen commencé fi ngeen dooree ba fi ngeen egg euh, nan la koy gisee jamono bi baaba maa ngi koy nuyu de passage gisee aliment bo aéroport la doon liggéeyee wax dëgg yàlla parce que xam naa tax looloo tax sama ba bëggul woon ñuy ñuy ñuy way da doon wax pourquoi doo leen toog ñu woyal leen mais comme sama doomu baay Aïssé dañ doon répété ca koñ ba ñun lu ñu rey mooy troupe bi suñu biir koñ la nekkoon ñoom tonton Tafa mi ak Dembi ñu def ko fa di répété mës na fecci ni boobu yàgg rek seeg sama papa jour boobu ngoon la waroon a wàcc ñu séen ko ak Aïssa danoo waaf mais comme Aïssa sama doom baay ay dóor ma ragaluma ay dóor léegi ay dóor la ma moom moom dem nañu fecc répété nañ ba ñëw am damay dugg sama néegu yaay sor ay pilovère yu bëri maa gënoon muus Aïssa côté boobu pilovère yu bëri sama papa dóor ñu ba pare ñu sangu ba set yaa ngi dégg Aïssa moom dem na bokkatu nii si wetu yaayam man génn naa man maa nga ca suba la ñu war defaat maa la wax lii sama papa naan kii dafa ñàkk jom yow moom de tout façon da ngay gis ci sort de ma maison man génne nañ ma ñaatoon suñu kër génn naa ñaari yoon dëkk kër nday nday xale ndax ay fecc lu ma mus ta wax nit maa ngi koy doog wax nit sama papa buggul buggul daal parce que ne lan ngeen ni dem di woy di fecc doo leen toog ñu feccal leen est-ce que comprends nga li ma bëgg a wax mais sama yaay comme moom peut-être sama papa fi doon gisee mooy nanu jàng mais man aw ma xelu jàng dunu ma bàyyi mënuma jàng nii de siin rek laa mënoon yàlla dogal na loolu man sunu monsieur dama doon récité ba wala ma def chanson ba pare mu xool ba mu yàgg wëndeel bopp bi ne ma waxal sa yaay na bi waaye ak saaga sunu monsieur man mënuma jàng waaye léegi mënuma jàng sama du ma bàyyi ma dem jànguma jéemuma ko sama yaay mës na ma napp xam nga sama yaay jàngul xam nga boobu xam nga ne boobu dama ragaloon rek ay dóor sama jàngul est sama yaay bi ne ma soo mokkalul doon nelaw bu suba teel maa ngi xoole sama yaay nelaw na bu yàgg mu leer ma ne mënoon naa jékki-jékki dii ko benn yoon ma ñëwaat mu ne ma mokkaloon nga dem man ko waa bu tey bi laa gën a mokkal rek jël nii de siin bokkul sax ci li ma doon jàng <laughs> niw de siin parce que des clés laa lin laas version lii xaw ma lan lan David Diop baa ma daaneel ma wax ba mu neex ma ko David Diop <laughs> est ce nga te sama yaay jàngul ba pare bëgg maa jàngal ay leçon est ce que nga li ma bëgg a wax David Diop ma jeexalee ko David Diop comme sama yaay Diop la sant ma jeexalee ko David Diop peut être. pour mën naa am sax mu foogoon ne maamam moo bind livre wala sama yaay ma tey moom. doo tëdd ci kaw lal te jeexaloo jàng yi ma ne amul problème comme démb sama yaay def na ma ko nelaw tey la sama yaay di xam ne lépp <laughs> lépp dëgg la waaye naa ma toogal fii nga jàng sa leçon yi toog seen kër yi moom ay sa toogee rek ma toog ñoo toog am benn problème sama yaay daa ma resteel xam ne démb ni ma defoon ma xoole ba suba teel ndax ragal mu yeewaat ma ne sama yaay niw de siin am niw de siin rek va si que des rek ma dem dem ba ci kanam jeexalee ko David Diop mënu ma fii la yem ma ne ko waaw mënu ma <laughs> yow suba jàng sonal ma kenn mais sama yaay moo tax nag ñu teel a bàyyi jàng. baaba baaba. instant bi baaba waaw baaba. baaba bi mu dóoree ba sonn wax ba sonn xam na ne lii la ñu bëgg sama mag bu góor la commencé. baaba da doon wàcc taal otoom di wër sàmba sàmba di wër sabar yeeg fuural yeeg ak ak ak simb yi sama mag bi nekk Amérique. amul lu ko baaba deful baaba dafa foogoon xam nga bu yàgg paaw tukulóor yi dañuy foogoon ni aar affaire de banditisme la woon. boo ci duggee rek ñàkk la ñu mu ne Samba bandi la. baaba di wër Samba mës na ko fekk mu solu sax gaynde simb sam papa ñëw ba ci ne ko oh, Samba mu ne ko gaynde bu sa papa gaynde sa papa fekk la nga solu simb gaynde oh, mu oh, mu ne ko mm. di ko dàq ji fu ne yow sam papa di dàq ji Samba fu ne bi mu tëwee. tubarkalla xam ne mënul dara sàmba sàmba mi ngi commencé tëgg am xaalis xam nga léegi dem kër tàkko def fa groupe kis daal di fay féyte nag bu demee tëggi daal am xaalis bu ñuy jox sama yaay jox sama papa fóot ay yérem sàmba yeneen yére sàmba delluwaat dëgër bopp googu nag la la sàmba def tubarkalla macha allah ba loolu yóbbu ko Amérique muy tëgg sabar di way ak lépp yor orchestre am Amérique boo ko liggéeyam macha allah laf ma di ko ñaanal lu mu mën yàlla na mën leneen ndax moom moo ñu jiitu rek ñu topp ci léegi baaba singili ma man boobu dem baa ngi def mécanicien demba tamit jàpp ay rajo yu yàgg ancien rajo yooyu noonu ñu doon wëndeelee bantu bale su lëjee noonu demba toppale yooyu rek moom tam di enregistré di di toppandoo ay woyu baaba maal rek ci kër gi lëjël ñu wit di yokk ay rajo lu leen demba di ko def sa baaba single yi ma nag man yaa ngi dégg mais man nag comme yow ku góor ke moom rëcc na dem yow doo demee noonu affaire de bandi du fii nii man ko baaba lii du affaire de bandi dañuy liggéey léegi bu ñuy jàngi ma ne ñoom demba ñëw leen wii di koñ ndax sama yaay bëggul ku ñu dóor mm. boobu turub bi dafa am fu muy joué ji ma sama garam bu yaay ak sërëm ak yëpp denc ko bu ñu wiiree ko ba ci kanam ma ñëw ne sama yaay ne jàngu leen ma ne ko ah dañoo tëj buntu bi mais Mor bu ñu duggee def ñuy dóor sama yaay ne bu ci dóor na am toog leen xanaa kon sama yaay moo bàyyi ko kon toog dañu ma teg saag bi rek daw naa kaar bi kay kaar bi yóbbu artiste yi du ma fi bàyyi ma ciy nuy bu baax a baax jee asu sare ndax ñun ñëpp la woon tubarkalla macha allah yaa ngi dégg ba après ba léegi yooyu yëpp ñu def ci affaire de jeunesse def nañ ci lu ñu neex tubarkalla waaye yàlla baaba bi mu dee ba xam ne fii la ñu jëm nag mu nangul ñu ko du dëgg lu ñuy def muy toog Sorano bu demba dem nga gis sama papa day toog sama yaay toog sama yaay bokkoon nag ci di ñu poussé bu baax a baax foofu lay ñëw sax parce sa waajur bu jigéen bokk na si ñi la dooleel. Mhm. Euh, su ma déggoo penda euh, penda ne moom bu amaan concert wala podium buy am. mu mhm. bañ ko rate danaan mhm. yaay suba yee ma telle heure. daa am concert bu ma war a dem ndeysaan mu yee ko moom nee bu demaan la moo ko daan motiver. pour muy gagné yooyu spectacle bu xalaatee dinaa su ma gañee pan bi wala siwo bi. bu ma demee naa ko jox sama yaay doon na bokk ci li ko doon gën a motiver muy fecc bu baax ba daal di remporter compétition yi mais am beneen affaire bu doy waar bu ci am. ndax yaa ngi ni fi nga xamante ni mooy Oscar des vacances ak Demba Guissé euh, jour boobu amoo leen woon sax paas bu mat pour dem ndax euh, jour boobu yaa ngi yor 1000 francs kase nga ne sa yaay yaay 1000 francs kase laa yor paas pour dem ñëw amuñu ko mu lijjanti beneen mille francs jox leen ko ngeen dem ma bëggoon nga ñëw tuuti ci sa relation ak sa wayjur bu jigéen na defe naa tey Pendo Guissé macha allah talent wam dawal sax sama yaram talent wam kenn weranteetu ko Sénégal bu ñu xoolee fi mu jugee ba fi daan dem ci simbi daan mm. woo di def caravane ba tey ñu gis ko ci woy bi imposé boppam si télé bi macha allah mu nit koo xamante ni tamit ñëpp a ko jox cëran ah. parce que ni mu ko waxee rek nit ki moom am na nooy comporté woo am na nooy mel noonu lañ lay tamit rek delloo mais moom dafa dafa xuus ñëwul fekk lépp taxaw mais dafa dafa dafa jànkonteel dafa xuus te yaayam rek la gisoon mu nekk ci wetam tey ma bëggoon nga ñëw tuuti sa diggante sa wayjur bu jigéen jooy loolu nag sama xarit waaw parce que nag fi ngay laal dafay sensible de trop muy sama yaay parce que nag li may wax euh, ku am kër ndey am nga kër baay des fois duma bëgg sax di si wax nag dëgg yàlla mais daf la taxawu ci sa carrière Pendo daf la taxawu ci sa carrière bokk na ci ñi la njëkk a gëm xam ne kii lii la bëgg te buñ ko si jàppalee dafay dem. man tey je vois que su ma xoolee sa carrière ak euh, anecdote yi ngay expliquer lépp loo am ci arte tey rek mérite bi moom lañ ko war a delloo man dama naan Pendo kenn waru ko rendre hommage mais yaayam la ñu war a rendre hommage ndax bëri na parents yuy gis talent di nelaw ci seen ay doom mais duñ ko taxawu duñ ko jàppale pour mu mën a dem ci kanam te loolu Afrique dañ koy faral di dund aussi. Ah, du ma bëgg sax des fois di wax ci loolu parce que <coughs> wax sama yaay bu ma du bëgg sax des fois ñu di si wax parce que bi ñëpp bañee sama yaay rek moo nangu woon waaw bi bi bi bi bi ñëpp di bañ sama yaay daa daa nangu woon nit ñi dañuy wax ay baan yi ngay nekk. dañuy wax ay bandi ngay nekk non dañuy wax ay bandi ngay nekk soo gisee may wax ci sama yaay euh, parce que bi ñëpp bañee moom ma nangu woon parce que aar bi am na benn moment kenn nangul woon sa doom def ko franchement parce que peut-être yaa ngi ciy xalaat. bu ko nekkee rawatina làkkat. rawatina làkkat sama papa nekk tukulóor sama yaay nekk olof man nga bëgg loolu mënuñu la bàyyi pour nga dem defi ko dafa ça fait mal mais nag da ngay daw ba wax yi la ci doon wax moom loolu moom ma forcé parce que des fois bu ñuy wax. nit kii booy wax ay kii li tax amul jëkkër ba tey yooyu moo ma forcé parce que dafay am ay ay waaru euh, xale du deñ xas yoo xam ne da nga ko doon dégg bi nga nekkee xale di def aar bi donc yooyu dangay wax ne ñii di ma xas liñ may xasee yàlla bu ñu ko gis si man loolu moo ma doon euh, forcé loolu moo ma forcé ba nii nii nii sax que su ma naree def dara sax damay xalaat parce que nit peut-être da ngay xalaat sa yaay sama yaay mooy sama référence mais dama koy xalaat parce que nag na jëm kanam rek moom buggul buggul lu bon du dëgg donc suñu may laaj ci sama yaay fragile boobu laay am parce que dafa am yu bëri yoo xam ne peut-être mënu ma ko wax ci internet te mu nekk loo xam ne bi loolu teewee moom dong mooy taxaw du dëgg ma ma ma ma sonaloon ko nag comme li ñuy wax ne des fois ñu dinañu dinañu sànni sa yaay xeer des fois dinañu xas sa yaay ndax yow te sa bëgg-bëgg rek moo tax ñuy xas sa yaay comprendre nga des fois sama yaay looloo tax nag lu ma wax dañuy wax kii pourquoi tu wax di wax papaam may dëgg la sama papa xamul woon mais léegi xam na mais sama yaay. bi mu metti voilà bi muy metti moom kese moo fi nekkoon. ñuy xas sa doom guddi ak bëccëg ça fait mal. léegi léegi dañuy dañuy daal di rek. Euh, xam naa xolam moo fees ndax euh, diggante yaay ak doom dafa jege mais euh, moom yaayam day kenn ci moom aussi xam naa pendoo dañ lay ñaan rek nga woyal ko comme saa nga bañ nga bañ. bilaay xoolal li ma bëgg wax yëpp du ko wax. Sorano xoolal ñëpp dañoo taxaw mu ni sama doom yëpp baax nañu waaye ma rocci ngeer da cee raw kooku ne luy loolu mun ne ko sama doom bu jigéen bi sama yaay sama xarit la dama ko yërëm buñ ko musaan wax kii ne kii ndax sa doom la day wax déedéet sama rakk la sama sama doomu nday la. sama xarit la su ma xalaatee yu metti yoo xam ne daan nañ ma ko wax yépp moom mu dékku ko moom rek moo tax may dem à l'avant du ma bëgg mu ñaaw du ma bëgg ñu reetaan ko du ma bëgg ñu reetaan ma lu mu bëgg suba ba ngoon jot xanaa ma bañ koo yëg man sama yaay su feebaree sax dañ ma koy nëmm dinañ yóbbu hôpital comme dafa am asma dinañ ko yóbbu hôpital ba faj ko ba mu delluwaat ba dinaa ne ñu ne ma démb kii ne daa feebaroon sama doom sama rakk bu jigéen ka jàmm doon moo ko dañ ko ko tuddee ñu may ko ko mais moom day wax démb kii na daa feebaroon sax bëgguñu la ko woon wax sama yaay moo leen wax bu leen ko ko wax kon sama yaay awma lu ma ko fayee dëgg yàlla dul rek ñaan yàlla 2021 bi yàlla may ma lu ma rek laa ko mën a defal woowal ko sat bu ndax chaque jour daf may wax ne su ma demoon màkk ba ñëw sat moo may wayal loolu rek laa bëgg si sama àdduna na ma yàlla may lu ma yóbboo sama yaay màkk ba fay ko nag lu ma wax billaahi sama carrière yëpp sama loxo yaay bii nii kenn ci Oscar de vacances bi ñuy dem 1000 francs kese laa yore woon mu génn ci biti xaw ma fu sama yaay dajalee ay weccit lu dul dem ci sama bopp mun nañu paasaat leen ñëw bi ñu demee gagné loolu laa doon jooy le fait que sama yaay amour boobu mu am ne ba dem leen lu may def sama yaay daf may ñaanal mun munumaa def dara te du te ma ne yaay doo ma julli ñaar ràkk foofu suba dama war a def lii billaahi wallaahi wa taala complicité boobu la ñu am man ak sama yaay ma yërëm ko nag loolu yaayam yaru ko yaayam gaañu na amul frère amul dara est-ce que comprendre donc loolu ma bëgg nekk sama yaay léppam bëgg a nekk yaayam bëgg nekk doomam bëgg nekk magam bëgg a nekk rakkam loolu moo ma sonal ci sama life te damay ñaan déwén si barke Seydina Muhammad su fekkee nit ñaa ngi dem màkk yàlla na ma yàlla may lu ma yóbboo sama yaay màkk loolu kese laa bëgg su ma ko yóbboo rek après dinaa dinaa firi ma xam ne lii laa ko yore loon barke Alaaji Malick mënu maa fay sama yaay ndey doom amul fayam sax ndax tout temps rek dañuy sàkku di dab seen bànneex di leen bégal te defe naa yow yaa ngi ci yoon boobu jooyi yi sax jooyu bànneex la te doom bu ne moom ngay ñaan ndax ku ku ne sañoon sa sa yaay fu mu toog sigil la sagal la wante wax li ne ci yow te Pendo sa yaay fu mu toog ñaanal na la gërëm na la sant na la parce que gis na ni féete nga ko côté bu ne sa rakk yi tout le temps yaa ngi ambiance yaa ngi kaf yaa ngi foo yaa ngi ree elle protectrice kenn dul laal ku ko jege kenn dul laal mbokkam xalaatoo ko ci ko suuf boo ko defee Penda Guissé danga bul sonn da koy gis ci sa kanam donc ñu koy ñaanal moom tamit carrière bu fructueuse encore ndax defe naa moom it day doog a door rek ndax pendoo li mu yor ci talent yëpp sax wanagu ko sénégalais yi ni ma ko waxee woon su njoteel bi rek elle est polyvalente li muy def macha allah bëri na mu ngi ci théâtre mu ngi ci musique bi mu ngi ci taasu bi mu ngi ci woy bi ah euh, présentation émission yëpp allah donc mbégte la ñu amoon tey fekk si ko tey amal ak moom waxtaan bi waxtaanee un peu en bref li nga xamante ni mooy parcours am wante tamit gën a xam kan mooy ki ki nga xamante ni mooy euh, Pendo ndax ni ngeen ko gisee nii nitu kase la nitu kase la juste que elle est tellement franche que Sénégal tamit dañu toll foo xamante ni boo dëgguwee rek da ngay xaw a euh, am jafe-jafe ah nit yi nag dem nañ ba du ñu nangooti ku leen wax dëgg donc ñu koy bàyyi rek mu joxe mot de la fin am tamit li nga xamante ni mooy mbébétam ci way juróom bu jigéen yàlla na ko suñu borom defal mu mën ko mottali incha allah ñu bàyyi la nga tàggatoo rek. waa maa ngi gërëm waa Dakar Buzz bu baax a baax di leen gërëm seen seen taxawaay di la gërëm yaw Rose. di gërëm ki nga xam ne moom moo ko moom di gërëm aussi Baye Modou Kane ak sama xarit yi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw sama directeur Mbaye Ngom. ak Dia Assou Sare ak Awa Cheikh sama xarit yi nga xam ne tubaarkàlla ñu ngi may dimbali te yàlla rek tax ndax man boo ma xoolee doo dimbali ndax yërëmtaluwu ma ak moomi sekk maa ngi koy gërëm bu baax a baax ah faramaareen boobu maa lay gërëm bu wér a di gërëm ñoom maam Kumba ñaan Amérique aw Cheikh Adama màngaan ñoom Biku Jara sama xarit yi ñanga ak ñoom Taay Bambara ak sama rak Fama géey ak euh, sama jànk bi Ndumbe maa ngi gërëm Oumy géey ñëpp ñi may àndal ñëpp ñuy di ma jàppale te xam ne léeg mu metti torop nag man ak ñoom sax su si programme yeeg yooyu noonu dañuy bëgg lii man ma bëgg lii ñu xëccoog man lii ma def loolu donc maa ngi baalu ñëpp ak di gërëm ñëpp nag leen wax nii rek laa mel nii laa mel sama yaay daal bëgguma ku ma si sax laaj nañ ma ñaanal rek li ma bëgg ci moom yàlla ma ko yàlla dimbali ba ma def ko loolu ko si laa ñaan. yàlla na ko suñu borom def te dina ko def incha allah ndax yow sa dafa rafet gise maabo ah, di nuyu ki nga xamante ni mooy tay bambara sama mbokku bambara bi nga xamante ni moom laa fi fekk di nuyu jibi gisee moom tamit muy nit ku baax di rakkam ah, macha allah di sama xarit ma koy nuyu au passage ah, di ñaanal maman bi suñu borom may ko gudd fan wér gu yaram talax fekkee ba mu fekkee loo xamante ni rek njabootam yéene nañ ko ko ci kaw suuf incha allah te xam naa ne suñu borom dina ko def yéen internet yi ñu doon seetaan à travers Dakar Buzz TV maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen fàttali yéen a ngi teewoon ci seen émission tase ngeen àndoon ci Rose la Fleur di remercier sama équipe technique Amadou Djibi Amza di leen jox dig daje très bientôt pour yeneen numéro incha allah d'ici là portez-vous bien.